abidi rahmani ahmadu baasi axarul insaani xaalal faqiiri abidi rahmani ahmadu baasi axarul insaani wa badu maa ngi yett abdi jaala di marsiyaal yaaram barawu rijaali def li nii magal borom cërgaan njaay kookaa di seex ababakar cërgaani faxrul kiraami saahibul irfaani jantam ngërëm ba feqewoon fa lambaay leeram ya wër bawal bëggi ndaw gaay seex ababakar cërgaan ma jooy ko jooyu gutti jooyu nga waaw jantam ngërëm bi jooy ko war na waaw ma jooy ko jooyu gitti jooyu nga waaw jantam ngërëm jooy ko war na waaw waaw ay naa la faxdi aqil cergaani rukunul xiyaari alimil cergaani def leen nii nu màggal Seex Ababacar Thiergane ay na la ay na la ay na la faxdi axil Thiergane rukunul xiyaari alimil Thiergane lu waaye mos lu dul Seex Bamba lancam ba am kuruj Sëriñ Bamba ab lancam amul cuq bay cuute def leen nii nu màggal lu waay mos lu dul Seex Bamba lancam ba am kuruj Sëriñ Bamba ab lancam. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki àddina bi ñuy topp yëpp di ñu siifir di ñu bàyyi xel noo ngi fii tey ci bisub sëriñ maam seex Ndiaye góor yàlla bis bi nga xam ne da koo baaxoo di ko amal di ci sant Sëñ Tuubaa di ci dolli njukkal Cheikh Babacar Thiergane Ndiaye bis bi nag tey dama wax ne dañ koo tuddee keppaarug mexe. képp keppaarug mexe paasiwul jàng alxuraan jàng xasaayit benn waxtaane baaxul suñ Tuubaa gi ñu feggoog sëñ Abdou Khadir Ndiaye mu baax mii e, di jàmbaar di acteur bu am solo ci lislaam rawatina ci yoonu marit rawatina ci njabootug Cheikh Babacar Thiergane Ndiaye defe naa bi jàppee bis ba tey mook sëñ bi noo ko ànd ci wet yëpp sëñ bi ginnaaw bi la nuyoo ziar la sant la di la béggee bu baax e, xam naa dañ lay bàyyi rek nga nuyoo mbooloo mi feeñal itam sa mbégte ak sa yëg-yëg ci bis bi bisimilah tafaddal. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax di jiital ci nuyoo ak siyaare yi buntu kër Cheikh Ababacar Ndiaye Thiergane di ñaan ki fi nekkal saa borom di ko fay yàggal lool defal ko fanu gudd lool waa ndëkk ak waaye noonu lañ koy ñaanale Cheikh Sidi Muxtaar Ndiaye mi doon xalifaab Cheikh Mor Awa Ndiaye di ñaan saa borom yàggal ko fi lool di nuyu mboolem kilifa yi ni fi nekkal rek di ko tàmbalee si sëñ Fallou Ndiaye moom si Mouhamadou Majid nga xam ne ak si na léegi di sunu sëriñ di sunu mag di ni sëriñ Cheikh moom mi nga xam ne moo taxawal bis bi di ñaan saa kàttanal ko ba bépp yéene boo xam ne am na ko ci am ko ci naal saa borom mottileel ko ko ah, mu def lu am solo nag dafa mel ni Cheikh Sidi Muxtaar Kuntiyu day wax ci téeréem bu tudd Susoosul Askar ne innal fawaayida fil aqaayidi njëriñ yi mu ngi ci pas-pas yi te yaakaar naa kenn ku nekk ci ñun wala ci mbooloo mu nekk rek lan fa bàyyi muy ndénkaane noo ngi koy sàmm kem seen kàttan watina nag ndénkaanu lu jóge ci Seexul Xadim Seex Babacar Ndiaye Thiergane kenn ku nekk xamal ni mu toll ci yoon wi waaye digganteem ak sëñ Tuubaa ak pas-pas baag yëpp kon bi yàlla dogalee Serigne Cheikh bokk ji wëlbatiku di taxawaay yi taxawaayu rafet yi muy alxuraan xasida ak salaatu ala nabi ak mboolem turi yàlla yi ngir ñi mën koo jëfandikoo fàttali jëmm ji liggéeyam bu rafet kon loola mel na ni mu ngi ca yoon wa ñu ñaan saa borom doole ko kàttanal lool kàddu yi nag mu mel ni ah, dañ koy yëkkati ci kàddu gi sëñ mu daaw Balla Ndiaye nga xam ne moom laa àndal di sama sëriñ di sama mag kenn ku ne xam ne buntu kër Cheikh Babacar Thiergane ak sëriñ moo rawa Ndiaye ñoo ànd ci yu bëree bëree bëri seeni doom dencante ñoom kenn ku nekk ci yoroon doomu moromam kon loolu ab cër la ba bi yàlla dogalee ku tedd ki nekk Sarsara muy fële ci Mauritanie ñoo àndan laxasooy dem ba mbooloo mu mujjën na bëri lool ba bayit yi ci sëñ bi woyan ne képp ku ma fekk fii Sarsara maanaam doon na sa taxe àdduna goog àllaaxira kon loola pas-pas la woon day mel ni nag bawal boo tuddee sëñ Aliou Diouf tudd Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane sëriñ Mor Maana Mbaye sëriñ Mor Awa Ndiaye képp ko ci wax te waxut ka des maanaam la muy waxtaane des na ndax dañoo jëflante woon lool àggan nañ ci daay laxasaayu kenn ku nekk fekk sa morom ñuy def ab tuur ba tuur bi mataat bu nag nagsee sab dëkk nga toog ñu jàllaat ci keneen ka mel na ni mbokkuk deret gi amoon na waaye bokk gi Sëñ Tuubaa da leen koo gënaloon loolu nag Sëñ Seex sàmm na ko lool te it jàpp na ko te kilifaam yi nga xam ne ñoom la àndal jàpp nañ ko kon noo ngi sant bu baax a baax a baax di am mbégte di ñaan bis bi daal lépp luñ ci def rek ci njëriñ saa borom nangul ñu ko saahir ak baatinan maanaam première édition bi nag ñu dem ba koy def nangam te yëpp di ànd ak ngërëmal Sëñ Tuubaa ba tey noo ngi ci bis bu am solo bu màgg bi bu am taarix muy bisub Serigne Maam Cheikh Ndiaye góor yàlla muy jataay bu am solo ñu tuddee ko keppaaru mexe loo am solo lool di ci feeñ mu wane ci ak mbokk ak yu bëri bëri noo am mbégte mu yaatu nag jàkkaaroog mu Moustapha sile mu baax mii mbokk ci jàmbaar yi sëñ ma paati Sille yi mooy mu ñëw teew teewal fi waa diwaan Sille gi yëpp. sëriñ bi ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la xam naa dañu lay bàyyi rek nga nuyoog askan wi waaye feeñal itam sa mbégte ci bisub sëriñ maam Cheikh Ndiaye góor yàlla sa wëllëre sa xarit sa soppe ci wet yëpp bisimilahi tafadal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taalibe yi ñu ngi leen ziar bu baax di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di am mbégte ci jataay bu tedd bi di am mbég ci ci teew ci bërëb bi nga xam ne ni ku fi bëgg nga fee teew da waral nag du lenn lu dul góor yàlla gi nga xam ne am lente nag ñëpp ngir ak mbaaxam ak woyefam ak jàmbaaram ak bëggam Serigne Touba ba ñëpp xam ko di xaritu ñëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi te la jiitu sa xarit gi dara waralu ko lu bëgg Serigne Touba ba ñëpp xam ko ca rek yemale wut Serigne Touba ak dara kooku nag bu xewlee képp ku ñëwutin ngànt la tee rek ak xat-xati jamono waaye sa xol a ngi fi kon bu nu yàlla defalee tawféex ñu bokk ci ñi nga xam ne am nañ yéene yàlla mottali suñu yéene ban teew ci jataay bi dañu am mbégte lool tey sant Serigne tubaa bi nga xam ne moo ñu defal loolu lii muy defit nag lu war a war a war la ndax Cheikh Babacar gaan dafa nekkoon jëmm joo xam ne nii néew na ku mel ni moom ci keppaaru Cheikhul Khadim di liggéeyal Serigne Touba guddi ak bëccëg joxoon ko léppam doon ko defee ca pencam mexe làmbaay kooku bu demee ba jëmmi jamono ab sëtam daw ay kilomètres yu bëree bëree bëri di fa sant Serigne tubaa mën na noo waat ne Serigne Babacar Sergat moom Serigne tubaa fay na ko ndax xëy na fa mu ko doon defee wéetoon na fa lool waaye bu demee ba ay sëtam di daw ay kilomètres di fa sant Serigne tubaa wane na ne moom moom am na ndam sa lam doon liggéey te moom yàlla boole na ko si ñu jaaree sa ndam loolee kon yàlla ko yàlla defal tawféex moom Serigne Cheikh defal ko gudd fan ko ànd ak wér moom daal li mu nekk neex nañu li tax mu neex ñun mooy dafa tege si yoon rek. di sant it bu baax mbooloo mi nga xam ne ba siñ Cheikh jàppee lii ba léegi ñoo ko ànd ak moom guddi ak bëccëg ñun ñoo jàpp ne ñun ñoo leen war a sant suñ sant bopp ndax li ñu gëm te jàpp ko mooy lépp lu fi ñu def rek ñun la ko defal ndax ñun dañoo jàpp ne ñoo waroon a def lépp la waral lool nag sa maam yi la woon muy sëriñ Mapaati Silla ak sëriñ Babacar Cargaan danoo nekkoon ñaar ñoo xam ne danoo wëllërante woon ba wax nañ ne yeggoon nañ ci di gungente dëkk ak dëkk. nee na bu kii maam ma paata ñëwee bu fa toogee weer bu ñibbi da koy gunge ba diwaan si la bu demee ba diwaan si la bu ñibbiwaat mu gungewaat ko ba ci dëkk bi nga xam ne de kenn du xam li def lan la sax waaye soppante gan soppante woon ak ak fan tegante woon ak Serigne Touba mi bokkante mu ñu ko woon a séddoo moo waraloon loolu kon ñooñu nii rek la seen seenu njaboot war a mel a mel waaw di sant uh, góor ñi ak jigéen ñi mbokki taalibe yi ñëpp. waaye li ñu yéene woon ci suñ xol bi mu nekk ci daal ñuy fas yéene koo génne ci góor yàlla gi ndax xam gun xam ci moom bëgg Sëñ Tuubaa ba yemale ko ak dara boo ko gisee bëñam nga njëkk a gis merem it yàlla xam ne ne mosuma koo gis te yaakaar naa bari naa ci ay morom kooku bu wootee képp ku ñëwutit xat-xati jamono rek la tënk waaye sa xol a ngi fi yàlla na ko yàlla dimbale mu def ko ay ati at lim ci bëgg muy mu Sëñ Tuubaa yàlla dajale ko ci moom asalaamaaleykum wa rahmatullah daal foo ko na ko àndaale euh, na it cant ak sëñ ak cant ak sëñ Abdoulahi cant ak sëñ Ahmadou ak cant ak sëñ Dame Diabba cant ak sëñ Aliou moom sëñ Mour Cheikh cant ak sëñ Aliou sëñ Mour Cheikh baag ba tey ak cant ak sëñ Alaaji sëñ Masamba ñooñu nag ñooy boppi kër sëñ Aliou kon. bu ñu àndaalee cant googu àndaale nañ cant ak sëñ Aliou Diouf Lambaye gépp ak njabootam góor ak jigéen euh, di ñaan suñu borom doole laa kàttanal defal la sutura nga yàgg koo def ñu yàgg la fay fekk ci barkeb sëñ Tuubaa barkeb mag ña lii moom wax dëgg yàlla daal lu rafet la ndax mag ñi nii rek lañ doon doxee ndax sëñ Aliou ak ko Babacar ak sëñ Mor Maane moom des leen a mënta tàqale moo tax lu ci waaye def ñu geesu gisuñu fa ña ca des xorom sa dina des waaye saa yoo ñu ne kii maxee la dëkk ne kii ci sëñ Aliou la bokk ne kii ci sëñ Babacar la bokk ne kii ci sëñ Mormaane la bokk moom bu boobaa lépp mat na. xam naa nag ñoom li ñu waxoon bëggoon nañ mu gën a gudd waaye lu ci gàtt rek ci man lu ci lu ci matadi rek ci man la <laughs> xam naa seen i kàddu gënoon naa jot loolu. waaye sëñ Ablaye mi ku mën a rafetal la ñu ngi koy sant bu baax wax dëgg yàlla ci taxawaay ndax ñu ngi taxawu sëñ bi. ñoom it bu ñëwee it nag xëy na kàddu gi it kàddu sëñ daam bi laa koy waxee ndax moom moo yor kàddoog làmbaay gépp waaw ah, kon moom itam mu ngi mu ngi sant daal di di rafetlu bu baax it nii sëñ Thierno def ndax lii rek moo ko war waaw ah, kon ñu ngi ñaan suñ borom dolli noo kàttanal te nu sax ci liggéeyal sëriñ bi ba faw te te te lépp lu nu yëngu rek ñu daje cee ngërëmal sëriñ bi barkeb sëñ ci waa ba am ñoo xam ne bi ñuy jox seen bopp sëñ bi dañoo ñëw joxe seen njëbbal pas-pas bi foofu seen alal joxe <coughs> am ñoo xam ne seen xol lañ foofu joxe waaye foofu sa bakkan joxe ko kooku moom dañ doon tànn boobu jamono ñi ko def ñooñu nag waruñoo yem ak kenn ndax jëmm joo xam ne am na kàttan am na sañ-sañ am na man-man taxaw yor ngànnaay taqal deret ba mu taq mun la dangay bàyyi kii wala ma rey la nga ne ko reyal loolu yombut moo tax moo tax juuf ak Ndiaye ak mbay yoon wi moom ku leen bëgg a féete kaw lu yàlla def la waaye du luñ liggéey <laughs> waaw ndax ndax sëñ Tuubaa moo mel noonu <coughs> te damay wax nit ñi ne leen garab loo fa gaje rek moo fay moo fay jébbi mbirum sëñ doom yi ak sët sama yoon newu ci du ma ci wax waaye seex yi moom kenn ku ci wàcc sa yoonu maam amut seex yi saya boo nga wër kenn ku ne sa baay lam doon def yaa ngi koy def bay def lu ko ëpp nañ doon joxe addiye ñang ca ba def lu seen maam deful woon ñu doon togg ay ndogu ñang ca def ca ba ca ba def ca lu ca seen baay nekkul woon deful loon seex yi moom matale nañ <laughs> boo gisee ñu yokk it looloo ko waral ndax sëñ Tuubaa ku baax la koo xam ne du nangu mukk li maye maye nangu du ko def waaye lu waaye nag yokk yokkit nag du ko def ku ku ku yokkut yokk ku yokkut <laughs> sëñ Tuubaa du ko def saa yoo xamee ne maanaam yam nga ak ñëpp la nit ñi amoon rek nga yam waaye soo bëggee weesu gaa yi rek am lu gaa yi amut moo tax koo fi kër goo fi gis mu yokk ña fa nekk la seen maam doon def yokk nañ waaye sëñ bi moom du wàññi waaye nag du yokk de du yokk lu yokkuwut sëñ Mourtala laa njëkk a dégg mu ne ah sunu waa ji de moom <laughs> hmm, sunu waa ji de moom ba muy yetti yoon boo waaxoo wut si ko day day daw dajeeg yow defal la la nga bëgg daal di daal di cay teg te moom day intellectuel ba gën a yeewu mënoo koo nax ka gën a dofit du la nax waaw ci sëñ Murtala laa ko njëkk dégg mu wax ko daal dal cay tegi jëmm la joo xam ne ku defee ne mën nga koo liggéeyal xamoo ko ne kenn mënu koo liggéeyal ñu ne ko lu ko waral mu ne dafa am fu mu jaar ak rasulullah ci kanam yàlla <laughs> waaw ñu ne ko fan la jaar ak moom mu ne nekkoon ci yàlla ba mu yàgg yàlla ne ko futtihaat abwaabuhaa <laughs> ja dellul ca Muhammad ku jàpp ci Muhammad egsi ne mu daal def Muhammad ab sëriñ def ko wasiila def alxuraan wirdam nee di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu koy fay mu koy tagg mu koy may <laughs> ne ba mujj yonent bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam li muy faye dara nekkatu la muy maye jeex <laughs> ne keroog la Serigne Touba na am cawarte ci tagg ko ak pas-pasu tagg ko bi nga xamee ne bu ko taggee mu buur buur buur buur joxu amul lu mu ko jox ne keroog lu gën a sawar ci tagg ko ne di ko tagg ba mu yàgg Muhammadu Rasulullaay xamuñu daal xamu jël xamu waaye dina def na nikk sama loxo fax man ba fa kan kanam yàlla ne ko sa jaam bii sama liggéeykat bii liggéeyal na ma ma koy fay mu may tagg ma koy may ba fii ma toll di wax yow ameel naa ko borub tagg ak borub may kon yow mi dul jeyal fayal ma ko ndax man dara nekkatu <laughs> nee mu ko déet doo jeel yow fii ma nekk du duutu jeex du jeex ñëw fi man ma dem feneen waaye sa waa ji li ma koy fayee na wax lu mu bëgg ma def ko <laughs> sëñ bi si sëñ bi si roo ko nettali nee na nee na yàlla tàmbali laaj mu nee na mu tàmbali eh, moom sëñ Touba di rëdd ci kan ci yoonant bi waaw ah, ku ma defal nangam ci xeetu yonant bi ak yonant bi ku ma defal nangam ci yonant bi ak ku xeetam ku ma defal nangam ci yonant nee rëdd wu rëdd yàlla far ne ko dees na ko def ba mu yàgg nag mu jaayante na ko nag kon léegi la ma bëgg man la ma bëgg man sëñ Touba nag mooy xeetam wi ko bëgg bu ëllëgee te am euh, manqué wala ñu am faiblesse wala ñu nekk doomu aadama tax ñu lay moy yow yàlla seen mooy yooyee nga jéggal leen ci sama bisu tey ji <laughs> nee na nag foofa sax keroog la am nag tansé ndax yàlla def ko ne aa ah, loolu moom lu ci bokk dama la koy jaay te nattu yépp nag yi ñu ko doon teg ne loolaa ko waral mu na yàlla luñ ma ci teg rek dinaa ko def yàlla rëddal koy rëddal mu ne ko dinaa ko def waaye rek ci ci ci wax sëñ Mourtala rek nee na ak sëñ Basiru nee na nee na bi nga xamee ne nee na quoi ah, léegi sa waa ji noppi na ako xeetam léegi nag yaa des <laughs> waxal loo bëgg nee sëñ Tuubaa ne ko ndegam li ma bëgg ci kii dees na ko ci def doy na <laughs> doy na ndegam li ma bëgg ci jëmm ji ak xeetam dees na ko ci def doy na ne keroog la yàlla ne ba mu yàgg mu ne Muhammadu Rasulullaah sa waa ji am musta waaye waaye duutuma laaj laajatuma ko ne nekk ci jëmmi Sëriñ ji moom yàlla da ci def da ci jëf di ci def di ci def ba mu yàgg mu woo yonante bi mu wuyu mu ne ko noppi naa ci moom dara xajatul ci moom sëñ Basiru ne noppi yàlla keroog ga moo moo defar gaa yu baax yëpp ba yàlla noppee ci moom aw yiw xajatul ci moom da ngay dajale sa yiw sa yéene sa alal sa bopp sa bakkan ba eggale des ci yàlla defar ko ba mu baax mu delloo ko ci sa kaw yaa nga xumaag wala gànnaar wala feneen bàyyi nga fi bàyyi diw mosulaa nawloo ci judd wala mosulaa nawloo ci alal yow bis bi ngay ñibbisi bi nga daata egg si sa kër fekk nga bàyyi diw moomu ne sëñ diw ma seeti woon sëñ tubaab bu ñibbisee ma jox ko saabam <laughs> ah? mu daal di wax ne noppi yàlla kerooga moo alak ku ko mës a dëkk te moo alak keneen ku ko bëgg dëkk beneen yoon ndax ba yàlla noppee ci moom aw yiw xajatul ci moom ab safaan xajatul ci moom ne ku yor sab safaan defar ko ba mu baax ba eggale rek des ci yàlla delloo ko ci sa kaw lu doon alak gaay sëñ bi am na wilaaya waaye mosu cee xeex ak ñoom waaye noppeeg yàlla keroog mooy waral waaw waaw sëñ daal ma mu yaatu nag e, kilifa gu tedd koo xam ne tànneef la du borom yitte ju muy sëriñ Cheikh Abdou mu baax mii moom sëriñ Abdoulaye moom sëriñ Makhtar Mbaye jàmbaari sëñ Cheikh Mbacke Darou Rahman ngi lay nuyu sëriñ bi di la ziare di la dal mu ànd ak nag jàmbaar yoo xamante Euh, diggante sëriñ seex Ndiaye góor yàlla ak sëñ Xaadim Mbay mu baax mii magu murit ak sëriñ Muudu Mbay euh, bëgg jàmm ku leen xam xam leen sëñ Cheikh Ndiaye góor yàlla xam ne ñoom ñaar euh, duñu ñaari kenn rek lanu muy ànd boo xam ne daa yàgg lool mbay bis bi sunu sa teewaay bi rafetlu nañ ko lool ndax yow moom sa pas-pas ak sa pësseef ak sa bëgg lu baax ak si yéen ci taalibe yi ñëpp la ko seeral sëñ seex mii nag di seen féete ba ñëpp xam ko noo ñaan taxawaay bi yàlla yàgg lool ci barke Seexul Xadim xam naa ne bis bi nag tabaarakallaahu sëñ naa mu baax mi itam noo koy ziare di ko jox wàccu waayam ak sëñ bajaan mi mu baax mi nga xam ne mooy bay faalu kër gi ak ñi ngeen àndal ñëpp euh, baarakallaahu su ko defee rek xam naa sëñ Ndiaga mbay mu baax mi di jégalu rek euh, tey day day bis boo xam ne bisub cant la di bis boo xam ne ay feex rek moo ci làmbo xam naa sax dañuy yalwaan kàddu gi rek euh, di la ko tuubal xam naa yomb la sax waaye buñ la ko ñaanee rek ci bisub sëñ Cheikh Ndiaye borom keppaaru mbexe loolu da daan na ko mën a may ndax tey samedi gi daa rafet ñu ci sàkku rek ay kàddu yoo xam dañ koy barkeeloo rek ngir jëmi sëñ Tuubaa ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax xam naa nuyu bi moom dañ koy jox sëriñ bi rek mu mu tegal na ko ci loxo yi suñu kilifa yu baax yi ñu fekk yëpp di di sant nag bu baax a baax a baax di sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad waaw di di di di jaajëfal Serigne Touba mi nga xam ne bis bi ak yeneen bis yi yee ko jiitoo ak yeneen yi ñëw lépp mooma muy ku tedd ki di rek di la sant ci ci ci ci pas-pas bi ak pësteef bi ak bëgg gi sëriñ bi loolu moo doon taxawaayu maam yu baax ya Cheikh Babacar Thiargane ndax damay faral di wax ne fa nga xam ne fa la cosaanoo magu fa waaye nag foofa buñ ko xamee ah, wax digg yàlla ginnaaw yàlla mooma ak ak mbokkam mu baax mu sëñ Aliou te loolu li ko waraloon mooy pas-pas bu ñu amoon ci Serigne Touba ak dogu ca ba nga xamee ne mënees na ne eh, booba muri moom bakkan lay laaj ñu jaayante sunu borom defal leen ci ndam ndam la moo moo indi lii ak ak yeneen bis yi mel yëpp yow mi nga xam ne nag dangaa bokk ci ñoom ba noppi di xeeñtu seen mboor di taxawal fi lu mel nii kon mel na ni la leen maam ya bàyyi woon fàttewu leen ci dara waaye itam xam ngeen ko waaye itam yéen a koy sàmm waaye yéen itam waaye itam yéen a koy yeesal saa su ne loolu nag mooy liggéey bi ndax li fi mat def lépp def nañ ko mel na ni def fi moom luñ luñ defutoon jafe na waaye nag fekk lan def ba noppi nga di ko yeesal ak a jekk-jekk la ko yokk loolu moom warteef la ci képp koo xam si ni dañ lay tudd di tudd sëriñ bi kon ñu ngi lay sant bu baax comme ni mu ko waxee sama gaay yi moom say gaay yi lan <laughs> waaw ñoom moom <laughs> waaye daal ñu ngi ànd ñun ñëpp rek waa kër sëñ Abdoulahi yi di leen sant ndax euh, seen maam ju baax ja ak sunu maam la woon ca ca kër sëñ Tuubaa maanaam sëñ Tuubaa boole ñëwaat boole suñ ñaari maam yi yebal leen Tuubaa sunu waajur we itam doon ànde woon noonu li may wax suñ fàllu léeg-léeg ma ne ko man de barab yi nga xam ne barab bi suñ màjj yi ma xam yëpp sëñ Abdou Mbaye tax ma xam ko ndax fenn fu ci ne ànd na fa ak man dem siyaare ji suñ màjj mu doon lu ma jàpp ginnaaw yàlla itam xëy na sëriñ bi boole nanu waaye sa waajur bu baax wax suñ màjj da koo feddliwaat nga xam ne jàpp gi ñu jàpp kër gi moom ndigal la loo xam ne mi ngi jóge ci sama waajur ak Cheikh Mouhamadul Majid bis bu set ma nettali ko kon ñun moom ñu ngi leen di sant di leen gërëm day di ànd ak yéen bis bi di ñaan ci yàlla ak yonent bi Cheikh Babacar nag nay gën di yokk ba faw te ànd ak kàttan ak wér ak aajo yu fajo man di bafal man di leer góor su maando te la ilaha illallah